Karim dina ñëw Karim neewoon na dina ñëw waaye léegi li am mooy jël na Karim lax fi lax fu yàq yeggu daa di def rawale ko lax ko ñëw naan dafay jël ay doomi jàmbur di leen génneloo ci tali yi di leen euh, tojloo ay ay ay ay ay mbir di leen taalloo ay pneu di leen euh, booblu loolu nag yaakaar naa ne Sénégalais yi am nañ conscience bu bu leen di tax ñu analyser doo lax sa doom bu pare ngay jël doomu jàmbur di ko jiital pour mu taal wala pour ñu indil ko ay ay jafe-jafe yi war nañu bàyyi xel ci loolu bu baax su fekkee ne combat bi ñor na ko ci biir avion bi muy ñëw def ci waroon indaale Karim mu jiite ko su fekkee ne combat bi ñor na ko dafa waroon jël doomam jël Sindiély jël euh, euh, Karim jiital leen comme moom mag la bu nekk ci ginnaaw ñun nag bés bu ñu gisee Karim jiitu si njëli topp ci mun nañ jàpp ne Abdoulaye Wade lu muy wax gëm na ko mais tant que gisuñu Karim jiite si njëli topp ci du ñuy dañuy jàpp ne Abdoulaye Wade ci naxelam